aywa Oumy maa ngi lay nuyu di la dalal. ma lay fay Faty bu baax merci jërëjëf si dalal bi di nuyu euh, toute l'équipe et puis mbokk téléspectateurs yi. Mhm. maa ngi leen di nuyu également. Euh, je vous passe le bonjour. On y va pour la météo de parti. ce matin, oui. Allez. Donc euh, tout y fraîcheur matinale pour pas changer. Mhm. fax fax je suis complètement à l'ouest ah <laughs> axe bi nekk euh, diggante Fatick ak Ziguinchor foofu moom dinañ fa nemmeeku quelques rafales de vent par intermittence dina laal tuuti euh, Dakar bi le vent soufflera à 30 kilomètres heure tandis que axe Fatick Dakar bi on est sur du 45 kilomètres heure mm. donc bàyyi leen xel ci loolu bu baax démb ci guddi.

Kaffrine bi moom 23 comme ni may expliquer schéma bi plus ñuy dugg ci biir. plus température di élevé wu di 23 à Kaffrine 23 à Kolda 26 Matam 27 Tambacounda et puis ca Kédougou dinañ fa xaarandi di degré ci suba gi. c' est quand même assez euh, remarquable hein, pour euh, une matinée presque 30 degré. bi euh, egsi na mu ngi dugg. Mm. ça arrive nànk ñu xool après midi bi moom lan la température yi di wax. Mhm. on est sur la maximale la carte hein, mais mhm. dinañ fa am 40 degrés 44 degrés par pardon. moo nekk température maximale bi. 43 degrés Matam 43 degrés à Tambacounda 42 pour Kédougou 40 à Kolda 40 Kaffrine Sédhiou 39 pour Kaolack et puis Fatick Diourbel. Euh, plus ñuy dem côté bële sur euh, la face euh, atlantique façade atlantique pardon. Mhm. les températures elles sont beaucoup plus basses 25 degrés minimal bi ci après-midi bi du côté de Dakar et puis 28 degrés ci bët gànnaaru dëkk bi. Mhm. du côté de Saint-Louis 31 degrés à Thiès soo xam ne il est chargé on va en nuage niir yaa ngi fay dox niir yaa ngi fiy doxantu. bu baax a baax sur la quasi sur la totalité pardon euh, du pays. ci après-midi bi. ñu dem ci wàllum euh, géej gi donc tey benn marée haute mooy am ce sera à midi 4. prochaine euh, marée basse ce sera pour 18h14 parce que marée 5 h cinq bi moom jàll na ba pare mhm. donc euh, la meilleure euh, heure tey heure bu baax bi pour dem nappi ji c'est entre 16h22 et puis 18h22 euh, c'est toujours deux heures de temps mhm. donc ah vos âmes les pêcheurs ngeen fàttaliku gilet de sauvetage bi GPS bi ak boussole bi toujours mooy kaaraange gi mooy ñi dem euh, ci biir géej gi carrément pas les pêcheurs qui sont au bord de l'eau ñi sànni am son yi bu bokkul ak gaal gi ngeen bàyyi si xel bu baax jant bi moom euh, fenk na ci 7h02 on a perdu une minute depuis mhm. euh, ci coucher du soleil bi parce que c'est à 19h23 minutes mhm. Cheikh Tidiane dem yaa ngi ma doon laaj euh, comment ça se que parce que lu tax ñu ne ñu may laaj loolu c'était Euh, quand le soleil se couche mais boo leen seetloo c'est toujours deux minutes après. ci la jàkk ji euh, di nodd. xam naa dañuy xool mu leer nañ ko le soleil est bien bien couché nga xam ne benn problème du am. dañuy mos ba pare door nodd. dégg naa loolu mais loolu du ma ci commenté. <laughs> donc voilà mm-hmm. dinaa dellu si si ñaareelu pàcc bi incha allah pour la météo en express. merci beaucoup Oumy Samb ci pàcc bu njëkk bi Samb joogal leer na naa ñu retrouver la ci ñaareelu pàcc bi. aywa jërëjëf léegi léegi Marcel rouge mu ñëw ci un euh, jour une actu